kon ñu mel ko ñun yow Mariam Sarr jigéen la fii la nga jàpp rey ko fii fii la ba rey ko waaw te mujj fenn amul siibi kon loolu Sénégal rek la am waaw Sénégal ñun du réew ñoo jóg Sénégal moom suñu bopp Sénégal mhm. loolu nag ki ñu koy jox mooy suñu dogu mu sell mi waaw instant yii nag ñu doonoo engagé ñun kenn koy ñu doonoo engagé waaw ñun waaw boo gisee mbooloo bi nga xam ne nii kenn ñu ci am ci bàyyi si lépp bàyyi ñu taxaw fii te bu ñu laajee fanaan ñu fanaan bi waaw yéen a tàgg yàlla baax na Fall Modou Fall ak jël Modou Fall ak noonu ku baax ku baax Aliou Sané yaa ngi ànd télé live PTS yow la ma tax nga ñëw si méga meeting bi méga meeting bi lu tax ñu ñëw si ak ñëw rek pour Sénégal quoi ñëw pour Seydina Ousmane Sonko mu seet bi mu seet bi waaw ba 2024 incha allah te am lenn lu ñuy wax rek mooy Sonko moom fooyewu ñu ko xamuñu ci réewuñu ci koo mën a doon boo taxawee ci kanam Sonko dinañ la avancer. dinañ la avancer. jàll si jàll si jàll. léegi nag yow xam ne fi nga taxaw nii fi la ñu rayoon Mariam Sagna naa fexe nekk si réew mi naan Adji Sarr jigéen la da nga a jàppale. Ah. léegi Mariama Sarr la ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy a baax di ko métti la euh, Sénégal moom euh, nekkul nekkul réew yoon quoi du du réew yoon ku nekk ci état bi lu neex nga def ku nekkul ci état bi nag moom ak boo deful dara sax ñu jàpp la. waaw mooy dëkk la quoi waaye nag dañu xam ne benn affaire de. Macky Sall. billahi walaay yomb si yow de non na xam ne lépp lu mu fi def. dinañ ko liggéey incha allah après 2024 dina rendre compte. dina rendre benn incha allah bu soobee yàlla incha allah. waaw ne nekkal jàmm waaw gis ngeen de ñoo ngi en direct ñoo ngi en direct Médoune Médoune yow xam nga ne Mariama Sagna fii la nga rey woon fii. waaw fii loo xam ne nekk jigéen boo xam ne moom lañ njëkk a rey si ci politique. Sénégal mais mais la doy waar. te jigéen la tey sax damay gis ay jigéen ñu naan fekk génn naan. wallaay dañuy jàppal Adji Sarr naan Adji Sarr jigéen la. wallaay Marième Sarr moom xanaa du jigéen. waaw loolu xam nga boo gis rek mooy Sénégal ni mu doxee. ndax moom benn tànk lay doxee. mooy képp koo xamante ni faral. loo def ak loo mën di ñàkk def baax na. te képp koo xamante ni da ngaa bokk ci Ousmane Sonko loo mën da ngay def lu rafet sax ñu jël la duma dugale ci boo xamante ni dafa war a jeex te li ko war a jeexal mooy ñun ndaw ñi la parce que nag suñ suñ suñ kii dafa nekk foo xamante ni jamono suuf jamono jël ñun ndaw ñi dañoo war a xeex xeex boo xamante ni la parce que Ousmane Sonko kat du tay la njabootam lépp loo xamante da ko waroon am mu bàyyi ko ngir Sénégal kon nag waruñoo gën a gore la parce que war nañoo taxaw ci moom la parce naax saay Cheikh Anta Diop dafay jaar naax saay Ousmane Sonko moom la ñu desee kon nag suñu bakkan bii la ci tege wallaahi laa lay wax ne lépp loo xamante ni moom jaral na ko jaral nañu lu ko raw te duñ ko caaxaane ah moom kay gétt gi moom danañ ko teg ci ñëpp di naan ci meew mi wala meew ñu naan meew mi commencé saaga sax meew ñu voilà meew ñu gëm ko ñëppantee yow kenn dootu ko nangooti moom day jeex tàkk notee ko day jeex ci réew mi par force ci yàq dootuñ ko nangooti mukk duñ liggéey huit ans neuf jours ñu